الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدنا مبارك maa ngi leen sant bu baax a baax rafetlu ñëw gi ngi ñëw fii fi man ak yëgal gi ma yëgal liggéey bii nga fas ne ubbi ci fin octobre maa ngi ci sant yàlla bu baax a baax te di la ci di la ci di la ci di la ci nawetam naw goo naw naw leeg nawle la ndax jur jur sam nawle rek lay doon gis naa ne tànk yi nga xam ne seen wajuro moom la moom la doon moom la doon doxe di ko waxee gis naa tànk yooyu rek ngeen di doxe di ko waxee loolu nag ci son sant suñu borom tey ñaan rek mu dëgëral leen dëgëral leen te aar leen sàmm leen ba ngeen àgg fu ngeen bëgg àgg ci ci yoon rek ci lislaam ji leen ko ñaanal suñu bopp lañ ko ñaanal suñuy doom lañ ko lañ ko ñaan lañ ko ñaanal noonu duñ ci ñëpp lu dara incha allah ko rafetlu bu baax a baax a baax liggéey bii ngay liggéey itam rek ma sañoon nga ñemee ci bu baax a baax a baax te de ndax ndax ndax yàlla nga koy defaral yàlla nga koy liggéeyal ku liggéeyal suñu borom rek moom da xam ne rawatina ci diine ji ci diine ji ci nga xam ne moom damay wax ne eh, eh, addina addina lu yàgg yàgg yàgg ak lu mu rëy rëy rëy diine diineem ci dong moo ko ci ñor leen ñoru ko fi eh, kon nag ku ci ku yàlla tawfeexal nga nga nga nga nga nga féet nga féete ko foofu eh, bokk ci ci ci julli ñi di ko liggéeyal ci ci diineem ji ba war a fen jot ba xam ne moom moo lay moo lay sàmmal boppam moo lay aaral boppam la nga bëgg moo la ko defal boppam su boobaa kenn du ci mën dara eh, kon nag na sant bu baax baax baax te te te te rafetlu taxawaay bu baax a baax te ñaan tam rek suñu borom defal leen ci ndam lu kawe njort barkeb Sëriñ Tuuba. waaw soxna si waaw soxna soxna si waaw man ba ba ba lu ma dégg ñu di ko tuddee loolu ma noonu ci eh, defoon na mag moo xam ne mën naa wax ne daara jii di daara suñ doom moo ko ci loxoom eh, li mu li mu njëkk a li mu njëkk a jàng moo ko jàngal. xam nga soxna jaar yeggu fi xam nga daanaka mm-hmm. ah, njaboot gi moo leen dem ci moo ko ci def ah, kon nag ku mat bàyyi xel la ku mat a ku mat a ku a dundal la dundal dundal turam la te it moom yàgg yàgg fi lool itam moom yàgg na fi lool moom ah, bëri luñ ko tudd sax waaye nag moom ku ku mat a ku mat ku mat bàyyi xel la bu baax baax nag turi maa ngi mu niru borom bu baax baax a baax te barke barkeel gaag yàgg yàgg yàgg yàgg gaag ak ak dëggu ga jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatulah <laughs>